dikkati naa wolof nee na borom butigu mbagg boo gis boo xaree xol ba magasin la ciy fekk yor yor yéen kaay na ma lan moo nekk tey jii ci xol ak dëndu nguurug Sénégal ndax nag dëgg-dëgg nguurug Sénégal bëgg na dem ci les élections ndax nag bu ñu nee dañoo joyanti Sénat jëlee Abdoulaye Sylla ca conseil constitutionnel yóbbu Sénat Cheikh Awa Balla Fall apériste Serigne Modou Awa Ndiaye candidat la woon bu APR ca commune bu Mboos te amul ndam Seydou Nourou Ba ñu daal di koy dàq laata mandaam di jeex dama ne ndax nguur gi fi mu toll nii opposition bi point actu naan man coow la ca pëndum teen ba gaañ a amul baaga waaye nguurug Sénégal gii ndax rootul rootaaleel yenn ci opposition bi coow la mooy nag ndax bu ndàqee élection yi ñan nag ñoo cay ndaga ndagar wala daal di jaayu wi ñaaru teex teex may ree ci suuf mbaadu nag du ña nga xam ne nag daal dinañuy ci président Macky Sall tabb gii mu tabb Amadou Ba wala it Ousmane Sonko mi nga xam ne jàpp nañ ko daal di faase turam ci liste électorale bi daal di sayal partem bii di Pastef wala it Karim Meïssa Wade mi nga xam ne téeméer ak ak fanweer ak juróom-ñett ci milliards la yoral état Sénégal te bu ko fayul du bokk wala it Barthélemy Dias mi nga xam ne jël nañu jaasi teg ci ndoddam te nguurug senegal mën a kupp boppam à tout moment Bougane Gueye Dany moom buñ ko dàqee du avantage am Idrissa Seck ak Khalifa Ababacar Sall bu ñu ko dàqee du seen avantage ndax ñi ngi jege nag at wañu tabbal ña nga xam ne mëntu ñoo nekk candidat Alioune mi woote dialogue en tout cas mbir mi taq na suuf tribune yéen ma li gën a taq suuf kay mooy lii ñaari membre yu Sénat yi nga xam ne tabb nañ leen Abdoulaye nga xam ne ña ngi ko jëlee ca conseil constitutionnel diri rongum rongum mi daal di andi ca sénat de décret boo xam ne daanaka scandale dong moo ko lal ndax ci 2017 Cheikh Awa mi nga xam ne moom la ñu wutul Abdoulaye Sylla moom Cheikh Awa Balla moo jiite woon mouvement de soutien TGV ca Géejawaay te loolee sabab ga moo doon tabaat président Macky Sall 2019 Bougane Gueye Dany ci yéene kaay bi naan kon tabb gi jaarut yoon te Sall faaw nga wax ñu foo teg sa tabb gii réew mi ko dijee naan en tout cas xel yaa ngi ciy tàmbalee teey l'indépendant yéene kaay naan kon kon ba ci njëkk mooy bu Bougane Gueye Dany le mandat yéen a kaay naan kon moom jiital gëm sa bopp ma ngay nag wàññe benn par benn erreur yi nga xam ni président Macky Sall def na ko 24 heures yéen a naan kon Gueye kay ma nga naan kon président laa bëgg doon 2024 te bëgguma nag sama xel bi daal di lambeer jaxasoo jurisprudence nag at wii daal di am 2024 ak at yi sa topp moo tax nag spécialiste yu droit yii damaa bëgg yéen ngeen leeral Sénégalais yii li président Macky Sall jëlub dogal fan la léegi fa yéen a kaay naan kon gannaaw njaga si la Pastef docteur Babacar Dione ma ngay naqarlu salfaañe gi bugaan géy dani naan leen leeralal leen nu seen salfaañe gi fu ngeen ko teg ma nga naan leen it farumaag ma sàmba farumaag ma demba waaye nag yootu gi may yootu réew mi tax na ma bëgg xam te yéen ñi seen xam-xam màcc ci wàllu yoon yéen a may leeral lii moom silla Abdoulaye Sylla 2018 dañ ko tabb ci conseil constitutionnel juróom benni at la war a def ci mandat mandat ba nag war a jeex 5 décembre 2024 moom Abdoulaye moomee mënta tekki ndombal tànkam ci conseil constitutionnel lu dul nag dafa jaar ci article cinq bi nga xam ne conseil constitutionnel teg na ko te article cinq boobee dafa ne kenn mënta gindi kenn ci conseil boobee lu dul sa mandat dafa jeex bu dee da nga bëgg démissionner moom conseil ba da cay wax daal di koy publier nag ci site ak journal officiel bi dara amu ca wala boo gisuñu ko te koo xam ne yaa nga woon ca conseil constitutionnel daal di bokk ca jiixi jaaxa ba amoon 2019 ci élection présidentielle amaat ci législative 2022 yi ndax kookee nag mën nañ ko tabb ca xolluk fa ñuy amalee élection ci réew mi mooy Cheikh Awa Balla 2017 ma ni la moo taxawaloon TGV ca Géejawaay ne président Macky Sall la bëggal beneen mandat 2019 beneen kaa ba moom moo di bu ambassadeur bii di Seydou Nourou Ba moom mi nga xam ne moo wutu woon Mamadou Mbodj bu forum civil tey jii nag ñu daal di koy faase te code électoral ba daal di leer te buñ ca toppee la code ba wax moom ambassadeur ba mii kenn mënu koo faase nii coow li kay bugaan géy dani ne fan la ñu teg tabb gii nga xam ne tabb nañ ko ñi la ñu teg ci bopp Sénat Sall nee na nag moom justice su réewum Sénégal dox rek dana dalal ñam war a dalal ñëpp waaye dox rek l'évidence yéene kaay naan man waxtu woowu gaa yaa ngay def kéemtalaay kàttan ba pare ne Amadou Ba loogu njëkk bu ñaar fukk ak ñeent junni ciy parrain toftal ñaari téeméer juróom fukk ak ñeent dëgg moo wóor bu Pape Modou Fall jébbale na ko ca diwaanu Njaareem te sabab gi moom moo di def kéemtalaay kàttan fexe nag ba fal Amadou Ba mii ci bopp réew mi turbine yéene kaay naan man ca diwaanu Kaolack it Samba Tall bu jaspo seen daal dinay ñaabar ñaabari daal di dajale ñetti junni ci parrain yoo xam ne daal dina koy jébbal Amadou Ba ca Kaolack jàppale nañ ko fanweer ak juróom ci groupement féminin waaye tam ñoo xam ne ñi ngi bokk ci ay mouvement di ay junni junni Kaolack waa Samba daal di ànd ak mouvement ak sympathisant fas yéene dooleel Amadou Ba laas yéene kaay xamal ma ni Omar bun Xataab si laa njiital Dakar dem dikk woon day ma ngay tàmbalee nag wax moom Omar bun Xataab si laa su ma jugewul woon Dakar dem dikk faatu fa yàllaahu laay def Omar benn Xataab si laa la ma andi gàllankoor ci sama liggéey mi ngi fii ci Louga mystique nan ma ngir ma faatu antuwul Omar ne daanaka joyanti naa Dakar dem dikk ay innovation am fa te man IGE musuma teg baaraamu tuuma terewul président Macky Sall dàq na ma te dàq li moom moo di yey nopp waaye tam mystique yoo xam ne maar day taali président Macky Sall nag ba mu koy xam njaw des naw xam bin Omar bun xataab si laa njiital valeur ne fi mu toll ni nag soobu ma ci benn combat politique maa ngi liggéey ngir yaatal samay base waaye daal nañu xam ne la ma génnee ci Dakar dikk mystique ko tàmbali yey nopp daal di koy jeex jeexal le peuple naan maan général Diène Gueye ma ngay dal bu baax a baax ci kaw Amadou Ba gannaaw ba ñuy ubbi permanence UDP bu biri ma Mangara ca Mbàkke général Diène Gueye daal di xamle ni Amadou Ba ci boppam ànd ak moom moo di ànd ak daanaka jafe-jafe yi sénégalais yi jànkonteel ak yi ñu génn moom moo di soobaat sénégalais yi ci misère waaye tam ne leen njëg yi ngeen di yokk baax na ànd nañ ci ne leen facture courant yi nga xam ne yokku na lool bëgg nañ wax leen ni leen ndaw yi amul xëy ci réew mi mujj wax leen ni leen sunu doom yi faatu ci màngaan yi it baax na leen ni leen feebar faju gi ci réew mi noonu la général ne leen lii am ci Mbàkke ñu ne moo ëpp nit ci réewum senegal day doy na firnde te boo seetee Mbàkke gii ñaar fukki junni ciy baat Benno Bokk Yaakaar du ko fi am tey jii bu ñu waxee waxi gañe élection daal làmbaay mën na ñaaw lanket naan maan la nar a ñaaw kay moom moo di njàng meeg njàngale mi nga xam ne ëllëg bés bu jàngalekat ci dul jàngale ci réewum Sénégal la moom Cheikh Omar Anne ma nga leen du xupp terewul jàngalekat yi ci boppam ne ñu talaata jii moom njàngale du am ci réewum Sénégal ndax nag lépp loo xam ne ak dige la nguurug Sénégal matalewu ko lii tax jàngalekat yi nga xam ne ñi ngi daal di sëngéem nekk ci tumuranke fas yéene nag soobu ci gréew goo xam ni maar day taali booba coow laa nga ca port autonome bu ndakaaru ak astab mi nga xam ne syndicat la ne du deltu ginnaaw ci xeex bi ñoom liggéeykatu port autonome bu ndakaaru yooyee soobu ci gréew turbine yéene kaay naan maan Ibrahima Thiaw ma bokk ca syndicat ba naan def nañ pàcc bu njëkk ci gréew bi te xamaloon nañ boobee directeur bi ni ko anam wi niy liggéeyee lañ bëgg mu dakk tey jii nag tàmbaliwaat nañ ko te boo moytul nag daañu gàllankoor port autonome libération yéen a kaay naan man maar day taali gi dëgg-dëgg mi ngi am ci sénégalais yi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci réew mi bëgg dem barça yéen a bi naan man bari na ci ñoom ñoo xam ne moom barzàq la ñu mujjee wala yi daal di teere Nouadhibou ni ki juróom-ñaari téeméer sénégalais yii fanweer ak ñett ci ñoo xam ne faatu nañ seen néew génn na lu ëpp juróom fukk ci néew mi ngi des ci ndox bi marine bi rek daal dinay dimbali benn gaal goo xam ne ñaari téeméer ñaar fukk ak benn ci ay màngaankat la defoon ñang ca fekk xale boo xam ne ma nga wasin ci gaal gi gàddu liir goo xam ne ñetti fan dong la am ak moom te dul woon ak marine bi day làmbaay ñaaw ndax dañoo paan ci diggu géej gi ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm ca yendoo eh, kon jàppale bu doon dix mille personnes dix mille personnes te nga dégg ne gaal yi doo ci dugg te fayoo xaalis trois cent mille ba quatre cent mille ça veut dire mbir a ngi fii ça veut dire xaalis euh, yëfi yi bi euh, mi ngi mi xaalis boo amul xaalis doo dem peut-être ñàkkul ñoo xam ne dem nañu gratuitement walla forcé dugg ci gaal yi mais la plupart ci ñoom dañuy dañuy fay boo jëlee chiffre deux mille nga calculer ko rek ci cent mille francs li mu lay jox ci koppar ça te fait au moins euh, sur 5000 personnes 400000 francs ça te fait 2 milliards. 2 milliards 2 yoo xam ne xëy na ndaw ñi mobiliser nañ ko juste pour soobu ci géej gi pour a dem peut-être Espagne boo jëlee sur la la fourchette de 50 000 personnes. Euh, yoo xam ne 5000. 5000 personnes ku ci nekk joxe 400000 ku ma bay ça te fait 2 milliards. donc ça veut dire que amaana loolu ñu ko jëloon investir ko ca na mu waree gouvernement bi euh, encadré leen ña ca war a jàpp jàpp ci ñu yombala leen yëf yi ça veut dire que ndaw ñoo ñooñee war nañoo mën a des fii ci biir réew mi mais c'est dommage que ñu war a dem bopp Maroc di obligé waat di ñaaraat ndimbal parce que tumuranke nañu foofu pour ñu dimbali leen ñu ñibbisiwaat fii Sénégal et ces mêmes jeunes bés bu ñu jekkuwaatee amaana tam dañuy delluwaat kon nañu fexe nu ñuy analyser waatee phénomène bi nañu fexe tegaat ci beneen gët ak beneen analise boo xam ne xëy na dina mën a tax ba ñu wut ci solution parce que wax dëgg yàlla ma mbay yëf yaa ngi métti te buñ ci gaawut a jóg dina gën a métti ay ndaw yu des fii ci réewum Sénégal ñoom dañu demoon ca àll ba ca peggub Lac ngir na xool nees mën a def ba mën a aar sunu aalam geex sunu kéew gi foofee sa Lac jot nañ sa profito ngir nag lu anam ga nga xam ne Lac Rose la demee euh, ay hôtel yu ca bari daanaka dañu leen abandonné ndaw ña fa doon liggéeyee dem nañ jël gaal yi ngir nag loolu yëpp daal di mën a dakk dina ca bokk ñu defaraat bërëb ba delloo ko waat taaram nga woon ñu ànd see Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. tànneefu Lac Rose ci ndaw yi aar mbay mu sell bi bokk na ca la ko sabab na melukaanu ko moomeeluk àddina soose mel xam ne sax mu ngi gën di nax saa yi. ak euh, Lac Rose donc ñuy wax si ay solution locale ak ay impact global tey boo ñëwee dañ ne si wax ju bëri yéen a ko dégg lac bi amatul sa couleur rose. loolu lépp nekk ay mbir yoo xamante ne yow du yaa si jël position mais ñi fi dëkk ñooy xool seen mbir waxtaanee ak ñun ba jàpp ni lii la mbir mi war a ñu ànd ci ak suñu liggéey bi ñuy liggéey fii ak ñoom. lu weesu ñaar téeméeri ndaw bàyyeekoo ci ay gox ak kuréel ñëw nag bokk ci kan bi weccante xalaat waaye it yëglu ngir muccal Lac Rose. Sénégal dañ nañ ci liggéey gis nañ ni lac boobu noonu mu ngi subir des menaces ñun ñu ñëw ci wetu gouvernement ci wetu ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi euh, pour xamal leen loolu et aussi taxaw nag yamuñu ci taxaw pour ànd ceeg ñoom pour impacter ko. pour liggéey ko aussi ànd ceeg ñoom ci fépp pour ñu nga xamante ni ñoom dinañu fa soxla les campeurs du Sénégal ñoom ñu ñëw taxaw pour li nga xamante ni xeex lu nga xamante ni suñu environnement. lu toll ci fukki kuréelu ndaw boole daje ci génération agro écologie xam ni jug nañu dox ci anam yi gën ngir nag dikku coppite yi nga xam ne moom la ñu ràññee ci climat bi. dem sa Qatar fekk fa équipe ba nga xam ne moom la ñu fa yebal ndax xam ngeen ne foofee ñaar téeméer benn fukk ci ay sénégalais euh, ñu ngi fay dund en tout cas euh, ay chiffres la yu nga xam ne mi ngi baaw ci ambassadeur bu Sénégal foofee sa Doha bokk na sa ñoom ay sportif waaye it ay étudiants yi fay jàngee di ay sénégalais Qatar nag ak euh, bu ñu koy méngaleeg Sénégal daanaka lu am Qatar fa mu nekk ni war naa mën a am Sénégal ndax Qatar pétrole baa koy doxal Sénégal daanaka it pétrole bi génn fi yàggatul dara dañ ko tàmbalee exploité kon nag opportunité la war a doon ngir nag su suqaleku doon réew mu taaru lool mucc ayib euh, docteur euh, Mouhamed Habib Diallo mooy ni xam le waxtaan la sekk ak Abdoul Aziz Sow Dabakh El Hadji Diène Qatar askan wi fi yeewoo euh, toll ci lu war a tollook ñetti million doomu aadama ñetti téeméeri kott ñooy ay Qatari lu ci des ay étranger lañu li mu sénégalais yu fi dund toll ci ñaar téeméer ak juróom benn fukk ñu yëngu ci pàcc yu bari. ci ëpp ay sportif lañu donc euh, ñu gis ne ne tamit après coupe du monde bi euh, ñu ngi yokku encore am na ay euh, pilote comme ay ingénieur ay technicien ay étudiant ñiy liggéey tamit ci secteur privé bi. muy njàng meeg njàngale mi caada wala njënd ak jaay ay accords yu bëri xaatim nañu ko diggante Sénégal ak Qatar jëm ci lu ñeel seen lëkkaloo. am na coopération ci domaine culture ak sport. am na yu ñu entamé tamit ñu mu ngi mu ngi ci yoon bi. li gën a fës mooy euh, suñu diggante ak euh, QAE. am na encore euh, yenn taxawaay boo xam ne ni ci ñaari côté yëpp lu mel ne kom chambre de commerce. Qatar di dëkk pétrole. seen modèle mën a inspiré Sénégal. yaakaar naa ne. bu ñu jaaree ci tànk yooyu duñu am jafe-jafe yu te mu am retombé tamit ci dundu nit ñi. son excellence am xel mu dal ci lu ni mel. Résistor da baax ñu dikkaat fii ci réewum Sénégal waxtaane kon manifestation ba nga xam ne askan way yeewoo sa commune bu Mbàkke dañu ko doon amal la ñuy lu moo di utum këyit ca mairie ba daanaka metti na lool ak naissance boo ko fa bëggee am lu nekk ngay daj foofee sa Mbàkke nee na ñu nag daanaka ñiy juddu 2005 pour ñu am këyit jafe na lool ndax koo sa laaj danaan registre ba dafa réer wala nag këyit gañ lay jox dara baaxu ca muñ ba seen muñukaay yegg si day dëpp gi tax ñu wàcc sa mbedd ma sàkk ñu ut solution sa na mu gën a gaawee Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf dëkk ba ëpp ñu yeewoo ci nit di jànkonteek ak ay jafe-jafe yi kayit yu bawoo ci mairie bi. da ngay juddoo Mbàkke yaroo Mbàkke nga am naissance déclarée nga ñëw di renouveler sa extre di ko yeesal ñu ne la nekkoo ci kàggu gi. ñi ciy joxoñ baaraamu tuuma. ne dañoo tooñ ba pare bëgg a jëlaat toor boobu teg ko sunu kaw parce que ñun ñëpp koo ci xool déclaré nga sa doom fa nga ko war a déclaré. noonu li mu jural askan wi ci ay jëya bari lool. te bu ngeen xefee élèves yu bari ren jii du ñu def examen bi ñu war a def. et c'est des centaines d'élèves yoo xam ne ñu ngi dans cette situation là. muy lycée d'excellence du Diourbel. suñu doom mënatuñ faa dem di doom Mbàkke léegi dafa mel ni la da wut passeport sax jàppale di la vérifier comme si benn terroriste lañ jàppoon di ko vérifier loolu rek dafa mel ñu seetlu ak ceetaan ci kilifa yi ne autorité xaaj bi seen doom jàng wut ñu ngi bitim réew ñu ngi si condition yu baax ñun doom yi baa doole ñooy baagante oto ñu ne dañuy annulé suñu kayit doom yi loolu lañ dul nangu kenn dootul annulé suñuy kayit aw kayit wu lu doon seen naqar ci état département bi préfet ne dina ko saabal ay kilifaam ngir ñu mën a jël ay saafara yu dakk nekkal la lu ni mel la gaa toll jamono ji mu dem ba nekk problème ci koo xam ne dafa war a juddu ñu war ko déclarer. waay te boo xoolee tranche bi nga xam ne moom la ñu moom moom la gën a concerné à Mbacké c'est la tranche deux mille deux mille cinq. deux cinq ñi juddu en tout cas deux mille cinq. parce que euh, boo rappelé ko antérieurement yaa yu eu problème problèmes qu'on a signalé à l'état civil de de Mbacké am na ci ñenn ñoo xam ne sax su ma juumul peut-être mën na gën a précis sama bopp mais su ma juumul. am na ci ñoo xam ne sax yoon mu ngi leen ciy topp parce que y des registres apparemment qui ont été perdus wala am na ci ñoo xam ne jàppe nañ leen ay fraude établir ay euh, acte état yoo xam ne teguwul ci yoon peut-être au profit d'autres personnes wala mu nekk sur la base de corruption wala ñeneen tax na ba tey jii ñu ngi handicapé ñëpp génération bii juddu 2005 ak peut-être ñi ci topp tey jii balaa ñuy am lu mel ni kayitu juddu da ngay obligé dem ci yoon il te faut une procédure judiciaire alors que légalement wax nañ ko ils ont été déclarés à l'état civil déclaré nañ leen fañ leen war a déclaré donc tey jii lu tax bu ñu soxlaa këyit ci état civil bu Mbàkke mu war doon jafe-jafe également xëy na mairie bi mënu ci dara xëy na également procédure bi yegg na foo xam ne on s'est rendu compte qu'il y a énormément de fraude énormément de falsification énormément de manipulation dans les registres de de d'état civil ou dans l'établissement de de des différentes pièces que finalement xamuñu vraiment kan mooy kan ak kan lañu fa déclaré ku ñu fa déclaré wul looloo tax nag askan wi jóg ne nag lii kon nañ ci wut solution ñun suñu boor bële ay jamono daloon nañu parce que sama classe gi yenn saay boo soxloon këyit mais da ngay dem ba ca sous préfecture ba et sous préfecture moo lay signer kayit pour garantir que ne yow kayit gi ngay wut effectivement fa nga ko doon wute foofu lañ la déclaré donc ça veut dire que problème am na problème am na Mbàkke tey jii ñi nga xam ne ñoo judd 2005 boo xoolee ba 2023 ñu ngi toll ci 18 ans ñenn ñi xëy na toll nañu ci classe d'examen war a am kayit toll nañu foo xam ne war nañoo mën a lijjanti ay dossier pour xëy na déposer feneen ak yeneen ak yeneen askan wa ci boppam di soxla këyit mu nekk jafe-jafe ça veut dire que l'autorité l'État de manière générale et est est interpellé te nag comme am nañu ministre de la décentralisation bu bees bu ci amee pexe également nañu seet nu ñu koy lijjantee parce que centre d'état civil boo xam ne fa lañ la déclaré mais nga soxla këyit mënoo ko faa amee ba il faut que ñu orienter la du côté de la justice pour nga mën a am un acte valable je pense que ça également c'est un problème c'est vrai que c'est des situations yoo xam ne la loi le prévoit mais nag ci ay condition lay doon et day reposer sax beneen aspect parce que bii bokkul dara ak peut-être des manifestations de colère mais am na dañ ko fi daan gis récemment ñoo xam ne dañuy mer dem lakk wala attaquer seen état civil ou après ñoom ñooy soxlawaat këyit mais ñoom ñooy ñëw mais bi waa Mbacké sont victimes de de des agissements de certains agents peut-être municipaux noonu laa ko mën a waxee mën naa jub mais problème bi le fond du problème c'est ça et donc il faut ñu wutal leen alternative parce que cette situation là dure également depuis ans te nag wax dëgg yàlla dafa war a jeex. Mm-hmm. lu am solo ñu waxtaanee kon association humanitaire SOS Casamance jóg nañu ngir taxaw askan way yeewoo sa jabir village la en tout cas askan woowee ngir nag euh, ñu euh, faju metti woon na lool yoon wu sori la ñuy dox bu ñu feebaree bëggoon faju ci ay anam yu jéggi dayo condition yi difficile mi ngi féete si département bu Bignona euh, jabir moo meede daanaka léegi am na benn case de santé bu nga xam ne def nañ ko fa mu nekkoon euh, defi défi bi nag li ci des moo di ñu équipé ko euh, ba nga xam ne nag daanaka ña fay andi fa ña fay liggéey su ko defee askan wi bu ñu bëggee faj mu yomb si ñoom ñu ànd Cheikh Abdourahmane Diallo bébét bu yàgg lool bu askan yeewoo ca Jabir nekk ca commune bu Oulampane la association humanitaire SOS Casamance réalisé. benn case de santé boo xam ne moom lañ fi. ngi dem sa Espagne waaye fa ñu mbëkkee moo di sa Maroc foofee la ñu teere jamono ji nag ña nga fa ci ay jafe-jafe yu metti ña nga fay dund ay xat-xat ay sénégalais lañu di ay ndaw seen bëgg-bëgg moo di nguurub Sénégal taxaw leen ba ñu dellu siwaat fii ci réewum euh, Sénégal kenn si ñoom jot na caa yëkkati ay kàddu ñu nang ko baka yokku suñu nekkin fii laisse ça laisse a désirer maanaam neexul neex ba war parce que lu ñu mën a dund suñu biir réew ñu ko fi dund lii la ñuy dundee matin midi soir matin midi soir constipation mu ñuy rey sama na yeneen feebar yi ñi fi ñëw indi fi ay maladie duñ jeex ñii indi nañ fi ay gaañu gaañu ñii indi nañ fi ay ñii lu ne indi nañ ko si si jàngoro actuellement li ñu bëgg moom mooy suñu condition fii sax garaawul lenn la ñu du ñaar du ñett du ñeent li ñu bëgg mooy ñu delloo ñu suñu réew ñun Sénégal. kase kase. Ah jamono joojee nga xam ne ña nga sa Maroc di sàkku ñu andiwaat leen ndax jafe-jafe ñuy dund fukk ak ñett ci ay màngaan di ay sénégalais dañoo faatu en tout cas sa réewum Mauritanie foofee la ñu leen denc bu ñu sukkandikoo ca bataaxal communiqué la bu baaw ca ministère bi ñu dénk affaires étrangères euh, dañu koy publier ni ki euh, démb agence de presse sénégalaise dal di koy nag euh, maanaam reprendre ne nañ dañu bokkoon Euh, ci suñu naataangoo yi nga xam ne ñu ngi toll woon ci juróom-ñaar téeméer juróom-ñaar fukk euh, bëggoon jël gaal yi ngir nag dem foofe nga xam ne moo di sa Espagne euh, waaye dañu teeri foofe foofee sa Mauritanie fukk ak ñaar ci ñoom nag dañoo lott ba ña nga kër ña nga ca kër doctor bokk na ca ay xale yu ndaw waaye it ay soxna daanaka yàggatu dara ña sa des ña nga xam ne dara jotu leen tàmbali nañu leen indi ci samedi bi wees en tout cas loolee la ñu mën a jàpp ci communiqué ba nga xam ne mi ngi baaw ci ministère des affaires étrangère mu ngoog day sénégalais lañ euh, euh, Simon saa su ne ay gaal di tëmb saa su ne ay xale di ci faatu euh, sa bar ñi nee nañ gaal dem na fa am na ñu sa faatu ñes de ñu ngi leen di wër ba léegi ca Mauritanie am na ñu fa jot a denc waaye terewul xale yaa ngi tëmb ba léegi est-ce que surveillance ba ca war dëgg dëgg dëgg ñu ngi koy amal même bu dee am na ma mbay matewul matewul parce que géej gi yaatu na matewul parce que boo jëlee peggu géej gi en tout cas nga jóge vers sud ñëw ba ndakaaru jëlewaat ndakaaru dem ba vers le nord Saint-Louis ba ci waaxi Mauritanie euh, ça veut dire que géej gi yaatu na géej gi yaatu na tax na ba même bu dee kilifa yi ñu ngi ciy def lañ ca mën même bu dee marine nationale mu ngi cee def la la mu ca mën matewut matewut tax na ba ñu bëri ñu ngi rëcc di dem et phénomène bi également boo xoolee yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na également ñuy dégg ne ay nit réer nañ ci géej gi yàgg na ñuy dégg ne ay nit ñàkk nañu seen i bakkan yàgg na ñuy dégg ne ay nit bëggoon a mbëkki Espagne paw teere Maroc ca Daxla ñi nga xam ne ñoom lañu seetaan sànq ñu nekk foofee di ñaan ndimbal di sàkku ndimbal ça diir dire que problème baa ngi fi ba léegi te jógeegu fi naka lañ koy saafara ku ci responsable loolu wax nañ ci waxaat ci waxaat ci mais duñ ko tàyyee wax ça diir dire am na quelque part foo xam ne problème am na te xëy na nit ñi tegaguñ ko euh, loxo tegaguñ ko baaraam pour vraiment mën ko saafara te même bu saafara naree amit Sénégal mënu cee wét kese il faut yeneen réew yu jàpp ci yeneen réew yu mel ni Espagne yebal na fi ministre am euh, de l'intérieur fan yële la même ministre de l'intérieur dem na Mauritanie également parce que boo jógee Sénégal di dem faaw nga jaar également ci yoonu Mauritanie gis nga waa Mauritanie également ni ñu taxawoo doomu Sénégal dem ba foofee tumaranke Mauritanie récupérer leen di leen toppatoo ba autorité Sénégal yi jot ci ba instant bi depuis sam di ñu ngi commencé indi ndaw ñooñee